incha allah amiin yaa rabbi. Mhm. ba ñu fëggee la ba ñu bàyyi sax lu ëpp détenu yooyu ñi nga xam ne dañuy def foofu sax ñu correct corriger leen tegaat leen si yoon bi parce que tamit prison pour réinsertion la quoi di fa tàggat nit ñi tamit pour bu ñu génnee tamit mun a jàpp yoon daal. Mhm. dawal yërmande daal. Mhm. dawal euh, pour affaire euh, conseil constitutionnel bi man li ma si xalaat mooy que ne conseil constitutionnel moom yoon rek. yoon la def te aussi euh, fii li obligation la aussi quand même quoi parce que dafa rappeler président bi que ne mooy li ma la waxoon ne euh, mandat présidentiel CDD la quoi du CDI contrat à durée déterminée la boo xam ne dafa am date quoi bu muy commencé ak bu muy jeex léegi mm-hmm. nag euh, dictateur yi ñoom dañuy bëgg jël CDD bi transformé ko en CDI def ko contrat à durée indéterminée léegi nag euh, conseil constitutionnel nag moom contre pouvoir am nga dafa am pouvoir am contre pouvoir. parce que mm-hmm. euh, pouvoir bi tam dafa am lu koy contrôler dafay tënku ci ay loi ak ay règlement quoi. dëgg la. te loolu conseil constitutionnel nag moom mooy sàmb loolu parce que pour pouvoir yi day dem bàyyi fa institution yi di continuer quoi. Mm-hmm. voilà. Euh, loolu la tey euh, boo gisee tamit euh, conseil constitutionnel am force wala fit euh, nu ñu invalider candidature Sonko bu dee Sonko la dañuy naan Sonko bon parti politique la alors que élection kooku affaire national la kooku du dafay dépasser parti politique kooku dëkk bi yëpp la parce que boo naree annuler élection mooy comme ni ma lay waxoon teg ko ci ay actes yu liberticide mooy maanaam liberticide bi mooy maanaam ngay fokkati ay war ay yelleefu nit bëgg a foqat yelleefu euh, dix huit millions d' habitants dafay metti quoi kooku mm-hmm. pouvoir bu ko mën a faire face melul comme bare par exemple booy xaj Sonko candidature am quoi bële moo gën a diis mm-hmm. com comprendre xam nga bu dee affaire Sonko Sonko kooku affaire Pastef Sonko la bu la neexee ak ñi ko faral mais affaire élection kooku affaire peuple bi yëpp la dëgg la mm-hmm. kooku xam nga loolu tamit dafay mettre tamit euh, Euh, kii bi conseil constitutionnel tam si benn impasse. Mm-hmm. mais nag conseil constitutionnel dafa génne Sénégal ci impasse fu mu nekk nii parce que Sénégal impasse bu mu nekkoon conseil constitutionnel ak euh, décision bi mu jël dafa génne Sénégal ci impasse bi quoi léegi am nañu ay yoon yi mun a jaar pour dem élection ba pare nag wutal ko ay euh, ay garde fou yoo xam ne ay date mu dul dépassé. Mm-hmm. ñu xamal clairement à partir du deux. président bi dootul nekk ci président quoi xam nga loolu yow musal naa la si wax sax bi ma lay waxu effectivement effectivement mandat bi uh-huh. CDD la neewoon naa la est-ce que à partir de euh, vingt cinq février Macky Sall di nga nangootu mu nekk si président xam nga uh-huh, uh-huh. c'est vrai waaw euh, affaire yooyu nag le conseil constitutionnel yooyu la mun a loolu nag mënul woon outre de ça parce que loolu du affaire euh, Sonko wala Pastef wala réfugié wala politique loolu affaire peuple bi la foofu ko moom d'accord mais mais ndax jàpp nga ni euh, euh, loolu ñu ko waa conseil constitutionnel sant que ni mu jàpp élection yi la balaa le 2 février est-ce que jàpp nga ni président Macky Sall dina dina jàpp élection yi balaa boobu wala ndax jàppoon ni est-ce que du langaamu ci article bi nga xamante ni defe naa ne mooy 52 bi nga xamante ni boobaak léegi ñu ngi dégg ci ñu faree ci nguur yi ñu koy ruumanaat. ñi faree ci nguur bi ñoom ci la ñuy dëkk ruumanaat yu ruumanaat yooyu dafa xewi. li affaire yi ay loi ay règlement parce que ñoom euh, l' essentiel Macky Sall euh, le président Macky Sall euh, xam na ne à partir du deux il ne sera plus président de la République comprendre nga mm-hmm. loolu moom que mu def élection mu bañ a def élection mu organiser élection mu bañ a organiser élection bu la deux jotee dootul nekk ci président loolu c' est acté mm-hmm. xam nga léegi nag lépp lu ñuy def loolu si biir loolu ay kii ay kii nii la rek Euh, Sonko nag euh, lu ñuy wax ay côté dialogue wala bañ a dialogue wala dialogue Sonko bu ngeen dégloo ay waxam yàgg na ko wax nee na na lu ñu respecté yoon rek. xam nga mhm. respecté yoon rek dooy na dialogue. dëgg la Sénégal ñoom bu ñu wax ay Sénégal pays de dialogue moom loolu wax naa mos la ko wax ne la euh, même Sénégal pays de teranga Sénégal pays de dialogue moo ko mag bu ñuy wax Sénégal pays de dialogue temps boobu waxu daawuñu wax sax Sénégal pays de teranga. Mhm. xam nga. xam nga mm. xam nga ko kon loolu yàgg na. dëgg la. waa ñun dialogue dafa bokk si suñuy cëslaay na ku nekk respecté yoonam rek bu boobaa kenn du am problème. jaajëf conseil constitutionnel dafa teggil Sénégal génne ko ci impasse yi ba pare euh, en plus il a remis les pendules à l'heure comme koy waxee. Mm-hmm. léegi nag ba pare nag par euh, courtoisie mu jox président bi opportunité pour président bi mu jox ko cëru. mu xool nu muy organiser date yeeg affaire yi mais mu bañ a weesu le deux la. Mm-hmm, mm-hmm, am na solo Mamadou merci beaucoup. Euh, voilà 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 su ko defee rek di ngeen daal di mën a dugg ngeen daal di wax seen xalaat par rapport ak actualité bi donc continuez leen vous plaît ngeen euh, ñi nga xamante ni jotu ko ñu seen notification ñu mën ko daal di jot ñëw ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi ci 88 628 73 08 99 25 24 02 bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam Boussa Bali. sa Touba ñu ngi lay ziar di la jaajëfal. Boussa Bali Boussa Bali ziar naa la. delloo ziar bu wér a wér macha allah ndaka waa Touba ñëpp gi ci jàmm. ñu ngi sant bu baax boole ko xol yu sedd guy ba raw wana ko mbott ndeysaan suñu xol moom xol bi sedd na lool maanaam kay fi ne nii. Mm-hmm. sama xol sedd na mu ngi lay nuyu di siyaare ñëpp. jaajëf. di di di di di jël nuyoo di ko teg ci loxoy Seydou. Mm-hmm. mu siyaareel ma ñëpp. Mm-hmm. ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay ñun ñëpp antenne libre moom dana neex moom <laughs> te gàtt comme àjjuma la nekk d'accord. léegi campagne yi dafa naa mën a tàmbali. aw waaw aw non il faut ñu jàpp dat bi ba pare. Ah. moo moo tax man su may tàmbalee. sant njuuj njaaj xam nga njuuj njaaj. sëñ Moussa Ka dafa génn woon maanaa aw wolof a tuddee ko njuuj njaaj. ànd ak ki ma àndal lu la neex laay àndal ba leen njuuj njaaj ku ànd ak ki ma àndal la neex laaj Macky Sall ak ki ma àndal lu la laaj Amadou ña àndal ba leen njuuj njaaj ku ànd ak ki ma àndal neex laaj Khalifa ak àndal ba leen njuuj njaaj ku ànd ak ki ma bu kenn njuuj njaaj ku ànd ak ki ma àndal neex laaj Bachirou jërë àndal bu leen kenn laal. ku ànd ma àndal lu la neex laaj. Bachirou jërë àndal bu leen kenn laal. ku ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj. Sonko de dana génn bu kenn juuj njaaj. léegi Mame Diarra. oui sa Touba. bu sa bu baali. Ah. Euh, léegi. Mm-hmm. comme yàlla dogal na. Mm-hmm. maam Macky Sall Macky Sall. Mm-hmm. moom jaay na boppam moom moom Macky dafa jaay boppam. Mm-hmm. ndax jaay gi mu jaay boppam mooy dafa waroon balaa génn di wax mu xalaat li muy wax bu baax mm-hmm. li ma doon gën a bëril samay kàddu ku mel ni Cheikh maa ngi koy siyaare démb mm-hmm. rek ñu ngi wax whatsapp maa ngi moom ma ne ko mu ne ma mu ne ma saa Touba dangaa waxoon lu am solo te boo duggaate ci émission bu waxaat ko far yàlla démb émission amul lool loola mooy lan mooy buñ kosaar buñ buñ jël suñ xel mépp concentré ci maanaam maanaam dina am amnistie mën naa am Diomaye Faye ak Sonko amaale ci sens loolu lépp suñu yoon nekku ci li suñu yoon nekk mooy. Hmm. élection yi dëgmal nii nan ca dem buñ ñu tardeloo buñ rey seen temps ci Diomaye dana génn ak Sonko dana génn. Hmm. loo hmm. day am par A ou den boo xam ne moom di nga ko yow mi nga xam ne yaa nekk ci farata farata ji mooy lan àdduna bépp xam nañ ne élection yi yaa ci jekku maanaam bu doon Sonko moom man na sax mën nañoo dem ba ay midi. duñ tàggoogul. Mhm. waaye bu dee joomaay la balaa enchère nu tàggoo. ndax sénégalais yi dañuy sot maanaam diggante bi Macky Sall génne waxaat ay waxee yoo xam ne kenn xamu ko. Mhm. allo ça oh ça Touba. mooy kër campagne Sonko. Mhm. bu sa baalee. ñu lay dégg waa ñu ngi lay dégg. am na bés man am na am na am na bés manaan laa. Hmm. Macky Sall mooy directeur campagne Ousmane Sonko moom Macky Sall yal na ko yàlla fay. Hmm. ndax hmm. wax waxam ji mu ne day reporté élection yi diggante bi li ci Pastef gañewaat kenn xamul nu mu toll ci ay nit. léegi nag yow ñi nga xam ne fi mat a taxaw seetlu te njar cee waxtaan mooy maam jaara génn nañu ay nit yoo xam ne ci état bu Macky Sall ñoom ñoo àndoon ak ay nit génn leen tuumaa leen sosal leen Antoine Diome sos na fi. Abdou Bakhoum xaw ma Bakhouma xaw ma boo bokkar xaw ma Abdou Bakhoum moomu mooy lu ñu loolu borom boobu ngande boobu. Mm-hmm. Ibrahima Ibrahima Bakhoum wala Abdou Bakhoum mooy Ibrahima Bakhoum mooy borom bu gad borom nel bu gad day nelu rek moom boo gisee nel bi. mooy procureur bu ngadde boobu rek. procureur ngay wax bàyyi procureur ngay waxal de. baal yooyu. waaw waaw <laughs> waaw ñu fiy fekk. xool mooy Ngolo moo nekk Chelsea mooy borom saa borom bopp yi ngande yooyu moom moo taxaw fii daal ne yokkal Ousmane ko sosoon ko. léegi li ma ta taxaw seetlu mooy sénégalais yi dañoo jël ay gone yu ndaw. yàqal leen seen ab liggéey. ñi nekkoon ay étudiants waroon na jàng ñi nekkoon ay moodu moodu yoo xam ne dañ fi ñëwoon war a delluwaat. ñu kit nappe leen yóbbu leen ci kaso bii ñe leen napp yóbbu leen ci kaso bii man est-ce que xam nga est-ce que est-ce que mën naa la wax benn hmm. ñëpp de waaye takk der am na ñoo xam ne dañuy fen déet déet déet saa ñu rafetal kàddu yi. non non dama lay wax non non dama lay wax dama lay man man saa Touba. dama ànd ak ku ñuy wax ji liggéey. Mm-hmm. ñu demoon ci suñ benn xewu donga man li ma la wax nii du ñoom duñ ay yónnetu duñ ay malaaka de respecté naa la waaye dama ne du ñëpp waaye am na ci ñoo xam ne duñ wax dëgg. Mm-hmm. xam nga lu tax. mooy man dañ maa sosal liñ ma sosale mooy dama ànd ak ku ñuy wax ji liggéey ñu demoon Madina góog sëñ Mbàkke Madina suñ benn donga bu fa amoon aw xew ñu demoon ca ban ca demee bay ñëw heure ngoon takk der yi karnu ca ca ca garage Dakar ancien garage Dakar bi. Mm-hmm. dafa am ay jours yoo xam ne dañ fay karaté ku jàpp borom moto boo bu ñu jàpp boo solee casque ñu jàpp la boo yoree permis ñu jàpp la waaye bu ñu la jàppee huit mille ngay fay. Hmm. léegi bi ñu ñëw bi maanaam ñëwee maanaam dañu ne dañoo taxaw man maa doon dawal léegi waa ji li mu wax mooy damaa naroon na foosé ci kawam bi mu ñëw damaa bàyyi moto bi mu tëdd ma wekk caabi ji def sama poche mu ne ma booy indi caabi ji ki ma sepante woon ji liggéey la tudd. mu jékki-jékki daan ne booy nii rek la ñuy na booy rek nii rek dinañuy nangam taan ndayam di def jin na ko ba mu ko waxaat rek ma nangam taan sa nday xam nga ba mu àgg ca biir ba mu àgg ba mu àgg ca biir lu mu leen wax ba mu àgg ca biir dana leen dañoo àgg booy bi dañoo booy bi booy bi booy bi damaa bëggoon a mbëkk bëgg foosi suñu kaw foosi mhm. mooy mbëkk ba pare ba pare ñuy wax mu saaganu te loolu lépp moom amut moo tax ma ne la dafa am ci ñoo xamante ne du ñëpp nag waaye am ñoo xam ne danañ sos mhm. li li war a loolu mooy ana ñuy ana ñuy jële ay nit di leen yóbbu lan la ñuy teg seen der dóor leen kàjj leen gaañ leen yóbbu leen ci kaso bi mhm. Mhm. loolu la loolu non non baat bi garaaw xool nga terme bee garaaw mais maanaam sosal nit ki moom la moom la wolof di wax fen su procureur yi fi jaaroon dañoo sosal ay nit tegal leen ay ay ay ay ay sos yu méttee méttee métti léegi nag comme yàlla dogal na ñenn ñi téye nañ leen lu mat un an daanaka ñenn ñi téye leen lu mat huit mois nga jékki-jékki bàyyi leen am na ñoo xam ne ay terroriste ay xaw ma force occulte nga leen jiiñ ñu ne nga jiiñ leen scandale yu gën a garaaw yoo xam ne da nga leen ko jiiñ téye leen xañ leen seen njaboot bu ku leen dégg daal ne waa kër diw dégg naa ay terroriste lañ. Mm-hmm. Mm-hmm. xoolal yooyu xeeti tuumaal li jar a bàyyi xel mooy maam jaara saa baa moo jàpp rek bàyyi ko mu dem garaawul mais nga ne saa Touba ab sàcc dama ko fekk mu sàcc su ñu bëri naan dégg naa daayir bi ne woon fii da daan mooy booy boobu yor ñu wax saa Tuubaa ndeke sàcc la xeetu wax yooyu la nit ñi jël tey ko tey seen seen seen seen bopp yi mais état état bu Sénégal bi yàlla daa dogal léegi sax ku demul prison sax yow amoo fierté parce que li tax mooy sosal la yóbbu la kaso da ngay génn maanaam nit ñi maanaam am ci cofeel goo xamante ni maanaam teggi na tuuma jooju maanaam ñi doon génn kaso di tiit di ragal di maanaam di bañ am ku leen kii Macky Sall dimbali mm-hmm. ba mm-hmm. a génn mais ça très ah, rapidement rek comme waxtu bi léegi mu dab ñu bëgg nañu nga defal euh, yi président Macky Sall jël jamono yuñ toll nii dégg nañ conseil constitutionnel li mu daal di wax jamono ji boo doon amal ab message maanaam boo doon jàllale ab message waa PDS lan leen di wax très rapidement. sa xarit. <laughs> mooy alaan alaan léegi tudde naa ko Dibran Dibran Dibran Dibran mooy militaire cité de daa am gàcca bu doon as gor day seey. bu fekkee moo nekkoon ci ginnaaw li ma gëm gëm ko mooy màggati PDS yi nga xam ne ña nga ña nga dund ca jamonoy àll sec nga xam ne fi ne nii ko jox nawar mënu ko sàqami mooy màggati PDS yi rek ñi nga xam ne seen bal jeex nañ ñoom ñooñu nga xam ne seen i bal tiire nañ ko ba mu jeex ci nguuru Abdoulaye Wade ñooñu noonu ñoo ñoo laxasu woon ci ginnaaw ne nañ fexe ba élection yi nañ ko reporté waaye nag gàddu nañ responsabilité ndax ci seen ci seen i wax ak seen sos ak seen i kàcc ci la Macky Sall réer moom Macky Sall moom Macky Sall daa réer Macky Sall xoolal comme comme comme borom bët yu naqar yi nga génn waxtu timis nga xam ne yow da ngay a réer gëlëm xam nga Macky Sall waa PDS ko mooy yow di wax ci loo xam ne jàppoo ci dara maanaam waa PDS ñoo ñëw daal ne ñoom dañuy fexe ba waxtaan ñu rapporter élection yi Macky Sall sukkandiku ci loolu ba génn di wax wax waxam ju naax Macky at yi bëreegul ba muy naax 63 ans donc la am dese na mën naa daw ba léegi ku fàqadu bi topp ci ginnaaw mën naa daw ñetti kilomètres léegi nag yàlla mi dara teewut dogal PDS làqu ci ginnaaw ay tappale ba ay nit faatu ci am ay dégâts matériels. PDS mm-hmm. am na ci responsabilité. Mm-hmm. bu ko amul tey yow mal dina ko ci am. ndax dañu ne kuy yee fitna musiba la maanaam kuy dox di yee fitna ak ki waral fitna ak ña ànd di def mbirum fitna ñooñu noonu lu am ci diggante ba am nañ ci responsabilité kon PDS mbir mi am nañ ci responsabilité. Macky mm-hmm. Sall am na ci responsabilité. la tax ñu am ci responsabilité mooy bu fekkoon heure bi day fekk ñu naan une semaine a des ci élection yi. Mm-hmm. heure bi day fekk sama baar bi dee sax heure bi normalement daa war na fekk sama baar bi dee nga xam ne mbedd àll bépp maa ngi dégg eh, kii di ko wax eh, koy wax eh, ki génn léegi nu tudd sax oh, kii koroma koromatin mm-hmm. maa ngi dégg mu di ko wax ne ne àll bi ñoo comprendre gut ndax man sama sama yàqal Amadou Ba ca mag ñi laa ko jëmee ndax mag ñi ñoo yeewu ko gone yi moom da ngay dem ci ñoom ñaar laa ñoo ñoo la gën a xam projet bi léegi nag mag ñi ko xamut ca dem mm-hmm. mooy mooy mooy loolu léegi nag waa PDS yi ñoom ñoo ñoo ñu xaj loolu heure boo naa fekk bu ma la wooyee sama baat day dee wala du ma tal di la woo. léegi nag PDS la ba je carte gi ban ba heure ba élection yi waroon am amu ko kon PDS dee nañ politiquement. Hmm. xaw ma waa li xaw ma poli PDS. Hmm. PDS. PDS de bu maanaam bu Abdoulaye Wade joxoon ndigal takk rajo ñëw ci jumaa ji ñu jox ko ndigal mu takk fii rajo daal ne léegi waa PDS danaa bëgg ngeen dem dimbali Diomaye fay ma ne leen maa bañ. te joomaay bañal ba gis kuy bañ nga bañ la ko ko bul ñëw ndax ñii duñu ay nit ay dealer lañu PDS dañoo dee politiquement ci at mii at mii at mii ba fii fukki at ci kanam PDS moom yàqu na ko moom bu fekkee xanaa beneen fédération bu juddu fekkaat fii yeneen ne PDS waaye PDS gii nii dee ndax la mooy dil rek lañ xam dil maanaam seen dil yu métti yi yàlla da leen a weer ba ci gundar kàmm Karim Wade wax naa la ko maam jaar Karim Wade mos màggati PDS si ñoo fi nekk di sos ak a wax rek dégg naa fi Waré Sarr di vidéo bu rëcc kon ñoom dèjà dañoo bëggoon mooy ci nguur gi ngir lan mooy ñoom jàpp nañ ne liñ liñ jàpp ay fukki at nangam buñ ko ñàkkee nii ñoom jàpp nañ ne danoo war a danoo a faatu waa léegi ñi doon jug di xeex ci projet bi bañ jàpp ne yóbbu ci kaso bi yow mi toog si kër di lekk kanaan léegi nga ñàkk li nga jàppoon léegi nee nga yow seen nguur gi yéen yàqu ngeen kon PDS war mm-hmm. war nañu Ibrahima Bakhoum war nañoo rendre compte Bassirou Diomaye Faye war nañoo maanaam Bachirou Gueye Bachirou géey laay wax. Bachirou Gueye war naa rendre compte ndax moo woolu woon Sonko ca commencement ba ñoom ñoom sos yi ñoom bokk nañ ci ak PDS ak Macky Sall mi nga xam ne nguuram gi jeex na. Mhm. fi may jeexale mooy yéen patriotes yi da ngeen doon téeméer dooleeku waat ngeen téeméer léegi nag la ci des mooy si leen ci li ci des amagu leen benn pas bu ngeen jéggi amu leen ndam ci dara bu leen sibile amagu leen ndam ci dara focus leen ci élection yii te bu ngeen àggee ba ca bés maanaam bureau de vote ya ña fay nekk bu ñu demee ba mënta ñàkk nan woor amul damay sawi amul damay tuure ndox dégg nga li ma la wax. Ah, peut-être sax mu tombé ci koor gi Sénégal lu mu bàyyi mën na ko dabu feneen. Ah, peut-être sax mën na nekk mu tombé ci koor gi tamit pourquoi pas. waaw bu nekk ci waaw mooy day gën a neex rek gis nga bu nekk ci koor gi. Mm-hmm. day tax mu gën a neex rek ndax li tax mu gën a neex mooy maanaam nañ fa teg ay nit yu am jom nit yoo xam ne ragal nit ñu ragal maam ñu ñeme ñu ñeme xiif ñeme mar ba pare rek këll rek rek këll gi mooy bu leen kenn ger léegi programme bi xoolal ñun ak ñoom ñun ak ñoom tànk bu ñu tegg ñu teg beneen tànk bu ñu tegg ñu tegg beneen ba keroog ñu naan Diomaye Faye mu ngi war a nuyu ak Macky Sall te a féete bu ñu demee ba war a nuyoo maanaam Macky war a génn amul joxañ tey loxo ay cati baaraam Macky Sall sa loxo ba mu jeex tàkk xam naa yaa ko gën a rëyub loxo waaye loxo rëy di maanaam dijj dëgër ko dëgër ko gën dijj téye ko de ko nit gisam ko wam wër na yaa ko gën ay bu doon Sonko bu ko nacc dina ko ne yow xam naa la bu ñu ma na ko nuyu nuyu boobu noonu sax na dëgër nga xam ne topp leen ko topp leen Macky Sall ak mbokkam yi di leen topp di leen topp ba keroog insha allahu rabbi yàlla na ko yàlla dogal ci barke Sëñ Touba Ousmane a passage de service ngeen koy wax passage de service. Mhm. passation de service mooy bu Macky di génn ci na dëgër xoolal dëgër. na dëgër ba bu ba jumaay ba jumaay di nuyoog Macky na nuyu ba dëgër laaj ko ba Macky maanaam booy jeeg bu jox jëkkëram ndox di wàcc tànk yi daal di sukk na ko naje noonu bu focus leen ci élection yi bu leen kenn sàcc bureau de vote yi bu ngeen wootee ba noppi dellu leen seen kër une minute quarante cinq secondes ngeen demaat yéen daal mel leen ni ku teg téléphone iPhone bu jar maanaam quarante millions di ko chargé nga xam ne ñetti minutes yu nekk ngi nga yër ko waaw wala nga bàyyi sa jongu ma ca kër ga maanaam ne ba ma ko fay bàyyi booba damaa fekkoon maanaam lam soloon daa xaw a yaraax léegi nag naa ko xel di bàyyi xel ñetti ñoom Seydou xam naa ñoo ma gën a xam li may wax waaye amagun dara luñ gañe fii bu fi kenn ciblé dañoo jàpp seen doom yóbbu leen ci kaso bi ñoom ñoo leen génnewaat foofu amul ndam de ma génn ma loolu sama yoon néewu ci mhm. waaw focus leen ci kanam jërëjëf jërëjëf jaajëf Satou Ba jaajëf ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax ajjuma bi nag ku ne xam na ni temps bi dafay euh, gàtt lool lool sax ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax donc xam naa euh, d'accord ñu jëlaat keneen ci ligne bi donc mën nañu jëlaat beneen internet su ko defee moo xalaatam salaamaaleykum mbokk mi